Abo Mbacké Thiam se prépare. Bonjour euh, jërëjëf merci monsieur le président monsieur le ministre maa ngi lay nuyu di nuyu aussi le ministre des finances le ministre du travail di nuyu aussi donc say euh, collaborateurs monsieur le ministre c'est vrai que ñu bari fii. félicité nañ la encouragé nañ la ci li nga xam ni moom nga jublu di ñaan yàlla aussi yàlla defal la ndam mais dama bëggoon si je peux me le permettre ma jox la benn conseil monsieur le ministre c'est pas parce que vous avez rejoint Macky que vous devez exceller dans le zèle un ministre de la République quand même dafa am lu muy incarner dans ce pays dafa war a mesurer son langage monsieur le ministre conseil boobu laa la bëgg jox souvent dañuy wax ne les transhumants sont plus virils que ceux qui ont créé les partis à la première heure vous avez insulté un homme politique ici publiquement en tant que ministre de la République en l'occurrence le président Ousmane Sonko taxaw publiquement ne moo am njabar am ay doom nga taxaw ne dañ ko war a xarafalaat monsieur le ministre mets-toi à sa place tey nga nekkoon Ousmane Sonko ñu wax ko ci say waajur doo la neex saaga baaxul moytu ko c'est le conseil que j'avais donner di ngeen ciipadu ba sonde mais bu soobee yàlla li ñu bëgg a wax nañ ko wax le reste monsieur le ministre parce que Macky Sall jaru ko dara àdduna jaru ko ce leader politique ce leader politique le président Idrissa Seck moo taxaw publiquement fii wax ne waxu Macky Sall mu ne kàddu Macky Sall laalo la ku ci jafandiku barastiku président Idrissa Seck moo ko wax comme nag kàddu Macky Sall laalo la te ku ci jafandiku barastiku kon def ci nànk monsieur le ministre je à autre chose toujours par rapport à li nga xam ne def nga ko ci sa ministère le 9 novembre 2022 da nga génn benn décision portant nomination du chef du service régional des sports de Kaolack nga jël madame Khady Diène Gaye mu nekk inspecteur de l'éducation populaire et de la jeunesse et des sports nga yóbbu ko Kaolack nee nga dans le cadre d'un redéploiement redéploiement bi moom rek la concerné parce que da nga ko jëlee Dakar yóbbu ko Kaolack jële ki nekkoon Kaolack yóbbu ko Thiès jële ki nekkoon Thiès yóbbu ko Ndakaaru nee nga da ngay redéployer tout simplement monsieur le ministre ça je le dis et parce que madame Khady kay Gaye est la commissaire au sport au niveau du mouvement des cadres de PASTEF nga bëgg ko ngay sànni ko Kaolack ñi fiy wax ay violence sur les femmes mais c'est une forme de violence morale que vous avez exercée sur une femme en pleine année scolaire début année scolaire nga taqali kook njabootam nga yóbbu ko Kaolack ay doomam di jàngee Ndakaaru ces enfants sont là amuñu ku leen toppatoo et ils se sont déjà inscrits ici ça c'est une forme de violence te jigéen lañ ko def et pourtant en 2004 biñ la jëlee xaw ma ICS xaw ma yóbbu la fenn vous avez crié à à à à. à l'acharnement parce que da nga ne Abdoulaye Wade dafa doon déséquiser ba bàyyiwu la fi yow aussi mu jëlee la fi nga nekkoon yóbbu la feneen yow yaa ko doon yaa ko doon kaas tey nga di ko def loolu jaru ko cette dame là ne mérite pas d'être envoyée à Kaolack sans consultation même si loolu vous n'êtes vous n'étiez pas obligé de le faire c'est une dame ramené ko à Dakar mu liggéey pendant ce temps pendant ce temps da ngay redéployer il des gens qui doivent partir à la retraite bala ngaa xa bala ngaa redéployer kay ñi nekk à la retraite chez vous mu nekk ay cadres yoo xam ne dépassé nañu l'âge de la retraite mais jële leen foofu nga indi ñu bees moo gën orienté je vous donne par exemple mais vous avez le directeur des infrastructures qui est parti à la retraite le directeur de la haute compétition il est à la retraite le coordonnateur de l'IAAF est à la retraite mais quand même kay bala ngaa transférer ay nit di leen yóbbu feneen mais nekk à mais ñooñu nga fi war a jëlee avant tout le fait de vous acharner sur cette pauvre il faut nga bàyyi ko monsieur le ministre dama bëggoon poser deux questions bi mooy est-ce peut arrêter les navétanes au moins pendant deux ans ñu redéfinir les objectifs ça c'est extrêmement important parce que navétanes yi quand même nekkatul navétane navétane boo xam ne day dem ba mois de mois mois day dem ba fekk si waat euh, euh, donc donc donc nawetaan nekkatul nawetaan nañ ko xoolaat monsieur le ministre est-ce que vous êtes prêt à faire les évaluations des campagnes précédentes. Je parle de football. CAF, euh euh, euh, euh, euh, Coupe d'Afrique bi passé bi ñu jël avec brio. Est-ce que vous avez fait l'évaluation, monsieur le ministre? Est-ce que vous êtes prêt à faire l'évaluation aussi de cette euh, précédente campagne bi nga xam ne malheureusement jóge nañ fa ak défaite mais ñu ngi féliciter les Lions di leen encourager ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient mais ce n'est pas ce n'est pas un déshonneur que de perdre la Euh, les armes à la main ñu ngi leen di féliciter di leen encourager est-ce que donc cette évaluation pour ñu xam parce que depuis Caire 86 y a énormément de campagnes yu fi yu am mais amul benn évaluation bu ñu def monsieur le ministre les lions sont euh, euh retournés avec presque 8 milliards c'est pas les mais je veux dire la fédération va avoir 8 milliards yoo xam ne moom la ñu jëlee ci campagne euh, coupe du monde bi est-ce que euh, monsieur le ministre xaalis boobu mu mënuñu ko investir ci ay infrastructures wala ñu xool naka la ñuy développer la petite euh, euh, la petite catégorie donc ce sont les quelques questions que je voulais poser di leen di la remercier ci déglu bi ma déglu di nuyu ñëpp di ziar ñëpp jërëjëf. je vous remercie chers collègues je donne la parole à notre collègue Serigne Abo Mbacké Thiam et notre collègue Ismaïla Diallo se prépare. kolega Bombako Chamila, d'accord. merci monsieur le président monsieur le ministre des sports maa ngi lay nuyu di nuyu le ministre des finances di nuyu le ministre du travail et di nuyu aussi le directeur du budget et di commencer samay kàddu di féliciter li nga xam ne moo nekk les lions du Sénégal di leen encourager parce que kii dem uti ji mooy ñàkk et que dem nañu uti ji Coupe d'Afrique andil ñu ko pendant des années ñu koy xaar mosuñu koo am ñu andil ñu ko yaakaar naa mbégte gu mel noonu rek l'histoire dootu ko fàtte te ñun Sénégalais dootuñu ko fàtte donc bu ñu demaatee ci coupe du monde nekk ak seeni nawle di dem di uti ji ñu dem ba malgré les difficultés ak équipe bi ak ki nga xam ne moo espoir yu ci bari dañ ko porté woon ci moom muy Sadio maane ak yenn joueurs yi nga xam ni ci euh, ci benn ba ci digg bi blessé ñu dem ba huitième de finale am na ay club yu am na ay pays yu mag yoo xam ni yegguñu fa donc ñu ngi leen di féliciter di leen encourager di leen féliciter aussi en tant que ministre des sports parce que yaa ngi soog a ñëw et que di la aussi encourager par rapport ak li nga xam ni moo nekk objectif yi et monsieur le ministre dama doon euh, ñëw par rapport ak li nga xam ni moo nekk stade yi xam ni ñoom ñoo nekk biir Dakar rawatina stade Demba Diop parce que stade Demba Diop ñu ñi nga xam ne ñoo dëkk Dakar dafa am solo loolu ci ñun parce que ba depuis bu ñu ko tëjee ba tey nawet euh, nawetaan amatul à dakaar comme ni mu war a amee te stade boobu noonu am na ci lu bëri loo xam ne doon na fa xew et que amoon na benn situation bu fa amoon ba ay nit ñàkk fa seen euh, seen bakkan ba amoon na fa ay gaañu gaañu di wax que ni tey bëgg nañ xam stade Demba Diop ci ban. Euh, euh, li nga xam ne moo nekk defaraat bi ban état la toll parce que ñun Dakar waaye soxla nañ ko mais aussi sat Amitié bi nga xam ni euh, bëgg nañ xam date bi nga xam ni si lañ ko war a mën a jotaat parce que stade boobu aussi nekk na lu am solo parce que bi ñu daan tëj sax Demba Diop dañu daan dem amitié di fa jouer nawetaan yi mais tey aujourd'hui amitier tëj nañ ko ak li ñu ci dégg yëpp par rapport ak li nga xam ne moo nekk moom moo nekk passation de marché beeg yooyu yëpp mais bëgg nañ xam travaux yi nga xam ne moo nekk stade amitié Euh, euh, euh, kañ la travaux yooyu mën a pare ba ñu war mën a jotaat suñu stade boobu noonu li nga xam ne moo nekk aussi stade Iba Mar Diop stade Iba Mar aussi gis nañu état bi nga xam ne moom la nekk et que je pense que ça se trouve dans le rapport et que stade Iba Mar aussi ñun soxla nañ ko ñun aussi ñi nga xam ne ñoo nekk biir dakaar parce que dafa am lu bëri loo xam ne moom lay marqué et monsieur le ministre c'est l'occasion aussi de vous dire juste d'être le ministre des sports parce que le ministre des sports moom la wax et le sport ne se résume pas ci moo nekk football ak li nga xam ni moo nekk làmb et que am na dootu discipline yoo xam ni ñu ngi andi li nga xam ni moo nekk ay trophée Sénégal fi nga xam ni euh, moo nekk bitim réew yaakaar naa discipline yooyu aussi war nañ leen mën a jàppale ba bu ko defee sport bi du yem rek ci li nga xam ni loolu moo nekk kii le stade Abdoulaye Wade mu nekk stade boo xam ni dañu koy magnifier ndax ki nga xam ne moom lañ ko tuddee muy le président Abdoulaye Wade donc nekk na joyau boo xam ne tey jii nii entretien bi ça demande beaucoup de beaucoup de millions lay demande yaakaar naa war nañ trouver ay mécanismes yoo xam ne avec entreprise yu mag yi nga xam ne ñu ngi nekk ci biir réew mi xool ñu mën a ak ñoom à ce que li nga xam ne moo jëm ci wàllum entretien bi par rapport ak ñoom ñu mën cee dugal seen loxo bu baax a baax a baax a baax bu ko defee ñu mën cee am li nga xam ne moo nekk sponsoring bi monsieur le ministre fi nga xam ne foofu laa dëkk aussi muy Grand Yoff aussi xam nga Grand Yoff mu toll ak euh, ni mu mel ci football yaakaar naa aussi soxla nañ benn stade bi nga xam ne moom lañ fa jot a amagum c'est ak partenariat bi nga xam ne moom la am ak la ville de Dakar muy moom moo ñu ci dimbali ba ñu nekk di ko tabax en ce moment là muy stade Bakayoko yaakaar naa travaux yi mi ngi avancé mais y a yoo xam ne am nañ ko fa muy ay espace yu mag mag yoo xam ni mën na nekk ay terrains multifonctionnels même bu fekkee mën ta nekk li nga xam ne moo nekk stade yaakaar naa loolu aussi bëgg nañ nga ñu ci bu bu baax a baax a baax a baax par rapport ak li nga xam ne loolu moo nekk championnat bi nga xam moo nekk championnat Sénégal gis nañ taxawaay bi nga xam ne moom la championnat boobu war a am fi mu toll ni amul léegi comment faire ba nga xam ne ñoo nekk aussi ay entreprise yu mag lañ nekk fii ci biir réew mi nan lañ leen mën a waxtaanee ak ñoom ba kenn ku ci nekk nga mën a sponsoriser li nga xam ne moo nekk benn équipe mën leen a jàppale bu ko defee parce que am na ci ay jeunes yoo xam ne am nañu talent et que fii ñu toll nii tey war nañ mën a dem ba talent yooyu daal di mën a génn ci suñ mën a dem di football li nga xam ne moo nekk suñu équipe nationale parce que soxla nañu ay yeneen trophées yu bëree bëri yaakaar naa loolu aussi war nañ ci mën a taxaw bu baax a baax a baax su ko defee ñu mën leen a jàppale loolu amoon ci li ma doon wax li ci des mooy di féli di encouragé waat Lions yi di la encouragé waat et di la félicité et di wax yàlla na yàlla yombal mission bi merci beaucoup. Je vous remercie. Je donne la parole à